asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi xel Ali Imran TV di ñu ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim téereb borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission at tadabbur a ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole yi ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquranul karim Ali Imran TV lay ame ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ci ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquranul karim suñu dund la moo ñu netti la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund tey te moo ñuy wax la nar a xew ëllëg inna haadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam topp leen ñu ñu ànd settantal téere borom bi subhaanahu wa taala ci Ali Imran TV ca kaw ca kanam bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ma bikum min nihmatin fa min allah mbokk yi seetaan Ali Imran TV ñoo ngi leen di nuyu di leen bégee di amaan mbégte it ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaayu alxuraan bi nga xam ne mooy atadabbur ñu di ci waxtaane téere borom bi subhaanahu wa taala di ko jéem a settantal di jéem a waxtaane lennat ci aayaat yi wala lennat ci saar yi maanaam suwar yi e, di ko jéem a dégg dégglu ak di jéem a teqantal suñu kemtalaayal kàttan ndax téere bi di alxuraan day géej goo xam ne e, tefes ga ak digg baayam foo ci taxaw dangay ngay jàpp ne yow rek yaa tooy waaye day lu fees dell ak ay njariñ ak i ngëneel waaye daa bokk ci ki ko gën a mën a jariñoo mooy ki nga xamante ne da koy settantal waaye itam da koy xalaate eh, di ko jéem a dund ak di jéem a xereñe waxinu borom bi subhaanahu wa taala amaan nañ mbégte ci dellu si ci gannaaw bi ñu leen jaajëfalee feggoowaat ak suñu xarit imaam Aboubacar Traoré moom laay àndal ci jotaay bii di atadabour ñuy jéem a settantal li nga xamante ne ni mooy eh, téere borom bi subhaanahu wa taala fadilatu imaam ñoo ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyonteeg ñi ñuy seetaan. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sant buur yàlla di julli ci ngën ci mbindeef. di am mbégte encore daje ak yow ci jotaay bu tedd bi. Mm. at tadabbur. Mm. settantal lan la ñuy settantal téere borom bi subhaanahu wa taala. dëgg la téere bi nga xam ne yàlla nee na nañ ko fàttalante na nekk loo xam ne moom mooy doon suñu. maanaam waar suñu lépp mu ne ci alquran ci surat euh, qaaf ne fadakkir bil qurani man yaxaafu waid képp koo xam ne mi ngi bàyyi xel ëllëg dajeg boroomam subhaanahu wa taala kooku fàttalee ko alquranul karim mm-hmm. ndax kooku fàtte boobu moom lay jëriñ mm-hmm. ndax ki nga xam ne bàyyiwul xel bés boobu moom alquran du ko jëriñ dara mm-hmm. kon ñi ngi am vraiment euh, courage encore ak fàtt euh, maanaam kattan ak énergie ci joxaat suñu doole suñuy temps alquran ji ci gën ko setantal comme ni nga ko waxee mm. waaye bokk ko mbokk yépp ñi àndandoo di méditer alquranul karim macha allah di la nuyu di la gërëm bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf imaam Aboubacar jërëjëf mbokk ñuy seetaan euh, di la ndokkeel bu baax di bëgg ci niñ ci ànde euh, ndax ànd nañ ci atadabur diiru weeru koor gi yëpp ba borom bi defal ñu xéewalu ñu jeexal koor gi di baalu àq bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ ci àndaloon ñëpp ci koor gi ñaan borom bi nangul ñu jaamu yàlla yiñ ci def jéggal ñu suñuy rëcc rëcc waaye wax ne koor gi moo jeex waaye jaamu yàlla moom jeexagul euh, te itam du jeex day continuer di wéy rek incha allah imaam ngi doon waxtaanee euh, saar wu am solo di mhm. suratul alaq mhm. moom lañ doon jéem a settantal mhm. dooroon nañ ko ba xaw a sori tuuti ba waroon tàmbalee tey ci àllamal insaana maalam yaalam xam naa damay bàyyi nga jàngal ñu aayaat yi ñu jot a am ba agsi foofu bu ko defee ñu tàmbali koo jéem a teg ci taabal ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 Euh, te mënaguñoo weesu juróomi aay yu njëkk yi fàttali ne suur saar wi nga xam ne mooy suurtu alaq mhm. ci saar yi njëkk wàcc wala mooy saar wi njëkk a wàcc alquran mhm. rawatina aayaat yi nga xam ne moo nekk ci kaw mhm. am na sax mbokk moom bind ci commentaire ay bis gi ñu génn di laaj ne lu tax suuratul alaq njëkk wàcc waaye bi ñu tegale kaamil bi ñu def ko muy suurat numéro 19 imaam loolu ci setantal gi loo ci loo ci loo ci jàngat macha allah mbokk moomu posé na question bu am solo euh, xam nga alquranul karim bi muy wàcc wàccul eh, mana bi mm-hmm. bi muy wàcc maanaam ci yeneen sallallahu alayhi wasallam bi muy wàcc jóge ci borom subhanahu wa mm-hmm. ci guddi laylatul qadr mm-hmm. ci weeru koor boobu dafa wàcc globalement parce que alquran nazala jumlatan wa munajjaman jumlatan maanaam dafa wàcc nekk global commencé fatiha baqara ali imran ba suratul falaqi wannaas ni mu toppante noonu noonu la ko borom subhaanahu wa taala jëlee ci lawxul mahfuuz jox ko jibril alayhi salaam. Mm. jibril indi ko ci première asamaan ci guddi laylatul qadr mm. mu nekk guddi boo xam ne guddi bu barkeel la comme ni ko borom subhaanahu wa taala waxee ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka mm. mu waxaat ko ci suratul qadr ci boppam ne inna anzalnaahu fi laylatil qadr léegi nag gannaaw bi mu ñëwee première asamaan nag léegi nag selon événement yeeg question yeeg xew-xew yeeg la soxla ak li nga xam ne moo war a jiitu. Hmm. mu wàcc nag thématiquement par thème. Hmm. wàcc nag par événement wàcc pour régler ay problème hmm. ci façon boo xamante ni bii bu extraordinaire la. lu xew rek lañ ci soxla ak la war a ñëw rek mu daal di ñëw. bu ñëwee si leen salaasalaam bu ko jàngee ba pare jëlee ko si Jibril ba mokkal ko ndax borom bi moo ko garanti loolu. ne lépp loo xam ne tokk na sa nopp bi mooy maanaam euh, day day day day day day sax ci sa dënn ak ci sa xel ci façon boo xam ne amul benn logiciel ci ordinateur wala ordinateur buy am ci àddina ba ilaa yomi diin bu mën a garder noonu données wala sauvegarder noonu dara bu raw sa bos bi. allahu akbar li gën a mën a téye tey maanaam enregistrement ci kawnu bi mooy dënn yeneen sallallahu alayhi wa sallam moo tax. suñu borom subhanahu wa taala mu ne sa nuqri'uka fala tansa illa ma sha allah naa la jàngal te doo fàtte mukk dëgg la waaw boobu moom bi ma la defal dëgg la boobu moom bokkut ak suñu clé USB yi nga xam ne yenn saa mu bañ yenn saa mu am problème dëgg la kon noonu la doon wàccee ci neen sallallahu alayhi wasallam bu juróomi aaya wàccee ba pare beneen événement am beneen xew-xew yeneen aaya wàcc wala yeneen saar wàcc mu wax jibril jibril wax yeneen sallallahu alayhi wasallam ne ko bii ci saar nangam la bokk bii ci place nangam la bokk bii mooy suitu saar nangam. ay aaya wàcc na dix ans quinze ans après yeneen aaya wàcc. ñu wàcc saar bi nga xam ne wàccoon na avant. quinze ans donc alxuraan noonu la doon wàccee. wàcc mu na jaman maanaam mu wàcc euh, façon boo xam ne maanaam ay thème la ay euh, aaya yoo xam ne dañuy ñëw. di régler ay situation di mm-hmm. répondre ay question mm-hmm. di régler ay problèmes donc noonu la alxuraan doon wàcc macha muy wàccin wu am solo li nga wax noonu mm-hmm. euh, gannaaw wàccul euh, maanaam bi tartil ni nga ko waxee mooy tegtale ne du daa wàcc un deux trois léeg-léeg itam aw saar dangay fekk aaya yoo xam ne sax euh, aay wàccandoowuñ saar wi lépp wàccandoowuñ waaye dañoo gis ne aay dañoo jokkaloo ci xereñu ko yonent yàlla muhammad alayhi salaam ak tawfiixi borom bi subhaanahu wa ak baaxu gaayum àndaloon ak guñ ko déggal borom bi taw feexal leen ñu mën koo dajalee noonu mm-hmm. loolu moo tax kon tegale bi demee noonu bu muy tàmbali ne mm-hmm. a wàcc ci alquran mm-hmm. da nga maa war a wax ne ma kon aaya njëkk yi ci iqra mooy leçon bi njëkk ci yonent yàlla muhammad waaye ba aaya njëkk ya daanoo borom bi da ko fa ne ñukk ñëw ci yaa ayyuhal muzammil ñëwaat ci yaa ayyuhal mudassir kon noonu la noonu la jokkaloo waaye li li li iqra ba ci wasjud waqtarib loolu moom ci yeneen i jamono la wàcc donte nag loolu yëpp mën naa wàcc màkk itam loolu nekk lu am solo bala maa gën a sori itam damay mhm. dellu si waat ci beneen mm, gendeeku boo mhm. xamante ne suñ menn mbokk sama mhm. jigéen bu baax bu nekk fële ci Amérique soxna Ndey Xadi Jaañ daf ñuy topp ci jotaay bi moom da doon def atadabour moom it ci saar wi waaye nee na mën a gut avancé moom ci iqra la yem <laughs> nee na bi mu ne jàngal <laughs> nee na gannaaw yàlla moo ñu bind mënoon a jekki-jekki loo ñu te defloowuñu mu ne ñu jàngal léegi njàng mi après pour lan euh, ma ne ko nag euh, damaa gëmmantu waaye danañ ci waxtaan <laughs> léegi nag ma tàmbalee fii waxtaan wi ndax euh, solo mm-hmm. si nga xam ne jox na ko atta dabur ba di ko seetaan di nuyuwaale suñu parrain Cheikh Fadel Ka ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy mm-hmm. topp rawatina waa ahlul quran yëpp euh, ma ne ko mm-hmm. euh, jàngal buñ ko waxee nit ki jàng doo nga doyut waaye def te jàngoo it ay coono lay indi xam nga olof yi dañuy wax ne kuy jéem loo mënut ña lay seetaanee njëkk a sonn ndax yow da ngay def bañ ña dana baax rek <laughs> mu yàquwaat waaye ki ko man moom day ñëw rek def ko léeg-léeg boo jëndee lu ñu monté ci bitig ba léeg-léeg moo wax ko gars yi am dañoo yàkkamti dañuy jënd ab ventilateur wala dara mm-hmm. def na lépp daanaka boo ko suivre fu bouton war a dugg dugal na ko fa mm-hmm. fu ñu war a def def na ko fa ki xam moom bu ñëwee da koy def taf taf branché ta lampe yi mu tàkk <laughs> waaye ki xamut dajji ab korno boofu doo nga mën na cee yendu <laughs> ndax daa xamut yoon wi moo tax daa jaarut ci yoon wi ma ne nag iqra kon xam li muy mhm. tegtale mooy xamal ba man maa jaamu. Mhm. xamal ba man maa topp. waaye xamal ba xam sa bopp. xamal ba xam li la fi indi. Mhm. xamal ba xam nooy defaree penc mi. loolu yëpp dafa nekk njariñul xam. moo tax bu ñu laajee lan moo tax ñu war a jàng. day tegtale dañoo war a jàng ngir ñu mën a doon ki ñu doon. ndax bu ñu jàngut kalaan aami la ñu doon. ndax bu boobaa euh, ñàkk jàng sax mën nañoo yóbbu ci balhum adal imaam Abubakar looy yokk ci tomb boobu. macha allah xam nga lii day wone miracle alquranul karim mooy benn baat. Euh, doon géej. dëgg la doon géej boo xam ne comme na nga ko waxee sànq. Mhm. tefes beeg biir beeg. ñoo ci ñoo wallaay ku nekk rek moom fa nga fa nga nekk. daa am mag mu doon wax naan alxuraan <laughs> boolub lem la. waaw euh, xam nga tey bu sukkoon boolub lem. tuum ko maa ngi yow ak uh-huh. kenn ku ne day yaakaar ne kanamam daa saf suukar. waaw waaye na jàppal ne li sa kanam di saf la sa kanam mu morom di saf. waaw moom góob euh, alxuraan noonu la mel. <laughs> noonu la mel bisimilah bisimilah géej la boo xam ne bu yaatu. dëgg la xoolal bi alxuraan wàccee ba léegi iqra ba léegi àddina mënta génn mm-hmm. iqra mm-hmm. ñu ngi ci iqra gën développé bis bu nekk Iqra di gën a am valeur am estimation euh, jamono bu nekk ci euh, surtout réew yi nga xam dañ jàpp ne ñoom mm-hmm. ñoo gën a jekku àddina mm-hmm. kon euh, baat boobu rek wax dëgg yàlla bind na ay téere téere yi du jeex jamono bu nekk dëgg la eh, suñu borom bu ko neexoon mu ñëw rek mu nañ ko jaamu waaye xoolal la fa mu ubbee mooy iqra jàngal mhm. ba pare mu ne faalam annahu la ilaha illa allah waaw te faalam ba mooy jàngal mhm. ndax boo jàngul doo xam kon mu ne jàngal nga xam ne moom rek mooy ki nga mhm. xam ne moom mooy buur amul benn buur bu dul moom pour nga mën a xam existence borom subhanahu wa taala kenn borom subhanahu wa taala xam gi daa bokk tax nga mën a xam yàlla moo ngoog Mhm. mooy nga jàngal ba mën maa xam mango nga jàng mën maa xam moo tax boo xoolee saar wi iqra la ubbee waaye was jur waqtarib la mhm. tëjee mhm. xoola diggante bi la fa am yëpp kon balaa dara danga nga war a jàng dëgg-dëgg ki bëgg a jiital euh, jëf bàyyi jàng gannaaw kooku dafay juum dëgg la ki bëgg a jàng tam bàyyi jëf tam dafay juum moo tax sax boo demee day wax naan innama yaxsha allah min ibadihi al ulama al ulama waaw maanaam ñi xam ñoo may ragal <laughs> waaw <laughs> moo tax ñoo ñoo ñooy ragal yàlla ba ragal bi poussé leen ci dootuñu jaamu keneen ku dul yàlla fa ñuy mëñee mooy xam li borom bi bëgg mm-hmm. ñu jàng ko xam ko ngir ñu mën a jaamu borom sax moo tax aaya bi si tegu nan la borom subhanahu wa taala mu ne inna alladina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salata wa anfaqu wa anfaquu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya yarjuuna tijaratan lan tabuur li ko jiitu wa maa yastawi al ama wal basir wala zulumat wala nuur wala zil wala alxarut ba yàlla ñëw alam tara anna allaha anzala min asamaai maan mhm. di wax ci xam-xam boo xam ne bu extraordinaire xoolal xoolal waxinu alquran wa maa yastawi al ama wal basir waaw wante mhm. l'aveugle et celui qui voit mhm. ne sont pas semblables non non waaw c'est pas la même chose déedéet mënuñoo bokk <laughs> waaw wallaay waaw silmaxa lañ koy waxee ah waaw ak njàccaar ñaar ñooñu mënu ñoo yem. dëgg la ah, kii gis ak ki nga xam ne gisul moo tax kii xam borom subhaanahu wa mm-hmm. taala ak ki nga xam ne xamu ko mm-hmm. mënu ñoo yem foofu sax mm-hmm. baat bi ci silmaxa euh, bi moo gën a foor boobu gumba la waaw man goog gumba gumba man goog xam nga tey silmaxa bu dee suñu réew day mokkal alxuraan allahu akbar euh, silmaxa bu dee suñu réew day toog yor daara di jàngale dëgg la silmaxa bu dee suñu réew day yëg yàlla mu saf ko ba mu gën a jub seexlu lu bari waaye borom bët yu ne bokk ba noppi gumba nag mooy koo xamante ne innaka laa taxmal absaaru <laughs> walakin taxmal xulubu lati fi sudur borom bi nee na euh, silmaxa seenu gumba du gumba bët <laughs> waaye seeni i xol a tëju ñu seen i xol a tëju dëgg la <laughs> kon ci nga xam ne maanaam dafa médité aay yooyu mhm. kuma tàmmali foofu wa maa ya wa maa yastawil ama wal basir mhm. di wàcc ba alam tara allah foofu li fa yàlla di wax bari na lool mhm. xam naa dinañ ko amal jotaay spécial yàlla di wax ci météo bi di wax ci wàll wàccum taw bi di wax ci wàllu géologie mhm. montagnes yi nañu formé seen couleur seen melokaan nit ñi tamit seen i xeet ak seen euh, melokaan ak seen i yàlla di ko wax mais xam-xam boobu bu demee ba nit ki médité ko. Mm. ba ba ba ba ba ràññee mm. ràññee ko. Mm. la ko war rek mooy ci saa saasee mu jébbal boppam. borom subhaanahu wa taala ne yàlla maa ngi. yàlla maa ngi nii. léegi nag moo koy jox xusu boo xam ne euh, yëg-yëg boo xam ne benn genre maanaa euh, nu mu tudd rek euh, cafka boo xam ne lan la koy puus. mooy. mu jéem a xam kan mooy borom bi pour mm-hmm. jaamu ko mm-hmm. moo tax nag suñ borom subhaanahu wa taala mu ne inna allaha inna allaha azizun ghafuur mm-hmm. inna lazina yatluuna kitaaba la lasta mu ngoog ci biri nag borom xam-xam yi nga xam ne am nañu xushu ñoom dañuy dëkkee di jàng téere borom subhaanahu wa taala waaye di jaamu yàlla mooy wa aqaamu salaat waaye itam lépp lu ñu amat dañ koy bokk ak jaam muy alal muy xam-xam muy lépp dañ koy jox ko borom subhaanahu wa taala nga xam ne ku xam rek bu téewul boppam dafay jaare ragal yàlla wallaahi mooy innamaa yaxsallaaha min ibaadihi ulamaa tey ki jàng xam garab yi ni ñuy développé. waaw photosynthèse waaw xam li fleur yi di def xam garab yi ni ñuy <laughs> xam garab yi rapport bi mu am ak doomu aadama. Mhm. ki jàng tey wàllu mhm. jaww jeeg yooyu xam mhm. gunóor yi njariñ yi ñu am microbe yi ñu war a lor suñ gunóor yi ci kër gi ni ñu koy lekkee eh, ki jàng tey wàllu médecine gis doom ni muy sosoo fi muy jaar fi doomu aadama di jaar ak wér-gu-yaramam ni deret di dawee ci doomu aadama eh, ki jàng wàllu science tey gis tey eh, li science mën a mën a développé ci manière générale day dem nag day jël ka ca gannaaw loolu yëpp nag hmm. di ko doxal te feeñu ci muy borom bi subhaanahu wa taala da ko yóbbee ci mu xam yàlla daa mel ne xam-xam hmm. géej la gu xóot a xóot moo tax yàlla ne yonent yàlla muhammad iqra iqra hmm. noonu gis iqra te xoola ba mu ne iqra fa mu tàmbalee waaw bismi rabbika alladi xalaqa xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma damay yéemu ci nit koo xam ne tiim na juróomi aay mhm. te deful ci moom dara mhm. man daf may jaaxal mhm. parce que euh, na mu na mu ñëwee ak na mu rabbe rabboo ak fa mu jamono ba mu wàcc ak fa mu wàcce ak ci ka mu wàcc vraiment loolu doy na kéem dëgg la dëgg la moo tax euh, yaa ngi doon wax sànq benn affaire bu am solo boo xoolee ci li yàlla bindee doomu aadama ak bindee fii dëgg la euh, tey ndeysaan ci ci nu mu tuddee sax ci waxtaan yi ñu doon def ci biig ci ci guddi laylatul qadr bi am na benn mbokk moo xam ne bu baax sax. Mm. muy joxe ay ay ay exemple mu ne borom bi li mu def si ñun te ñu war ko sant nu mu baree. Mm. waaye kéemtaan ba ci nekk ak technologie ba ci nekk moo ñu gën a yéem. Mm-hmm. xool ak rek. dëgg la da nga xool rek waaye. karaw lañ wala kawar lañ. waaw benn la karaw kon baax na waaw xam nga dafay jàngale ci yow. wala bu baax waaye <laughs> karaw moom boo ko waxee mooy gii sax ci ñun. waaw ma ngoog mm. <laughs> bii sax ci ñun. waaw ma ngoog kon karaw bii nga xam ne moo ne si ñun. mu ne xoolal technologie bi ko borom santaan def mu ne moo gën a ñaw moo gën a dëgër moo gën a euh, nu mu tëddee euh, nu mu tëddee euh, mm-hmm. mën a bënn li nga xam ne moom mooy pont yi nga xam ne moom la ñuy dàcc mii yi mu ne waaye yàlla def def na ko suñu yaram façon boo xam ne du ñuy mm-hmm. yëg ne ñaw na génn te yëguñ ko tëgg <laughs> te yëguñu ko waaw te boo xottee yaram ba fa mu nekk doo ko gis déedéet waaw déedéet te boo ko watee léegi mu ñëwaat mm-hmm. encore mu saxaat nee na loolu technologie boobu rek teg du la sonal nga xam ne tey munoon na nekk ci yaram nit ki mu koy sonal mu yëg ay kii mu yaram bi di xasan ak wala di métteeg yooyu mu ne waaye yooyu yëpp déedéet mu ne loolu war nañ toog ñu milité ko mm. maanaam li ñu borom subhaanahu li muy ne xalaqal insaana min alaq mm-hmm. maanaam toujours mi ngi ñuy yóbbu mm-hmm. dañu poussé ci méditation ci mm-hmm. ñun daal waruñoo ñoo toog benn yoon te jëfandikoo ñu suñu conscience yi suñu xel muy lu am solo moo tax fi may jeexalee ci wàll boobu ñii dugg safara ëllëg lan la ñuy wax bokk na ci li ñuy wax wala li ñuy njëkk wax ne cause booboo tax ñu dugg safara hmm. mooy ñàkk jëfandikoo seen xel wa qaalu law kunna nasma'u aw naaqilu maa kunna fi ashaabi sair gis nga faatarafu bi dan bi waaw waaw gis nga hmm. gannaaw bi ñu xamee euh, seen bakkaar ak hmm. seen jëf yu ñaaw yi leen ko dugal waaw ñu daal di dellu si yedd seen bopp yedd seen bopp ne buñ nekkoon ñoo xam ne dañuy déglu <laughs> ba noppi am xel tey xalaat. kon tey du nekk fii ci mbugal mu metti mi. am xel di xalaat di. waaw settantal alxuraan parce que yàgg nañoo dégg yëf yi mais dañoo <laughs> dégluwul. dañu dégluwul waaw dañuy déglu muy jàll. waaye law kun naa ma aw naqil. waaw maa kun naa fi ashaabi <laughs> saa ami nopp dong doyut li muy jariñ mooy déglu. di déglu moo tax suñ borom buxut mm-hmm. foofu euh, mm-hmm. ñaari li muy tudd jëmmi nopp. Mm-hmm. nopp nii muy lang bëriwul. waaye dégg gi nopp di liggéeyee lay lay tudd. tudd ay bët yuy xoole itam yàlla li mu koy def bëriwul waaye gis ci boppam mhm. lay tudd mooy li ngay xool moo ko yitteel mhm. eh, loolu ci waxinu borom bi subhaanahu wa taala la bokk eh, wallaay eh, léegi nag allama al insaana maa lam yaalam mhm. gannaaw bi mu tàmbalee ci iqra ba agsi ci aaya jooju nga xam ne doomu aadama kon borom bi xamal na ko loo xam ne xamu ko woon dëgg la mu bokk ci teraanga yi mu ko defal bokk ci xéewal yi mu ko mhm. defal mhm. loolu doomu aadama bu nekk yaa ci fi mu ne yaa ci def dañ mel ne borom bi waajal na jumtukaay yëpp ba mhm. noppi euh, léeg-léeg ñu ne diw daa am xam bu dee ñun ñi tàyyal dañ naan dañ koo sol ñu ne sëñ diw moom li mu xam du xam-xam dañ koo sol lim li mu xam walaay buñ ko solee itam fekk na xaw naa xaw naa toskare na xum jàng jàng na ba tàyyi <laughs> euh, yitte ju na ko ngir ngir fàggu xam-xam euh, xikma nag muy xam-xam bu ma ko jëlee ci baat boobu borom bi na maa koy jox ku ma neex waaye ku ma ko jox jox naa la yiwu rëy mu ne fii allamal insaana mhm. maalam yaalam imaam yaalam mango macha allah allamal insaana maalam yaalam mooy juróomeelu juróomi aaya yi nga mhm. xam ne ñoo njëkk wàcc ci suratu al al al al alaq ci alquranul karim di juróomi saar yi nga xam ne mooy première leçon juróomi saar yi njëkk wàcc ci alquran juróomi aaya moom juróomi aaya yi njëkk wàcc mooy hmm. eh, mi ngi yem ci allamal insaana maalam yaalam maalam yaalam allahu akbar eh, borom xam-xam mu fassiru nii ñi ne àllamal insaana yàllaa ngi si jublu ki nga xam ne moom mooy suñu maam aadam mm-hmm. suñu maam aadam bi ko boroom subhaana taala bindee dafa ne wa allama aadama al asmaa kullaha ne suñu borom ne ma daal di xamal aadam jàngal ko mboolem xeetu xam-xam mm-hmm. lépp bàyyiwuma dara mooy mm-hmm. mboolem xeetu xam-xam joo xam ne doomu aadama xamoon na ko démb xam ko tey ba ilaa yomi diin yàlla jàngal na ko suñu maam aadam turu xam-xam yi nag ñu ne turu xam-xam yi mooy lan maam aadam ba mu demee taxaw ci kanamu malaayka yi di leen defal exposition di leen wax di leen won ne moom yàlla defal na ko loo xam ne defalu leen ko ñoom mm. mooy xamal ko jàngal ko mm. léegi yàlla bëgg wone kéemtaan bi mu def ci maam aadam ba mu ne malaayka yi nañ ko sujuudal mhm. pour justifier loolu pour confirmer ko seen kanam ngir ñu jébbalu ñu nangul maam aadam mhm. mhm. maam aadam taxaw di leen xamal mboolem xeetu xam-xam lii mooy xam-xamu technologie lii mooy xam-xamu science lii mooy xam-xamu eh, rhétorique lii mooy xam-xamu nu ci dee sax eh, informatique lii mooy xam-xamu logistique mooy xam-xamu science éco di ko détaillé benn par benn benn par benn bu mu ci wax tur bi ba pare mu joxe détails yi malaayka yëpp yéemuñ daal di jébbal donc xam-xam yooyu le ñu ne euh, allamal insaana maa lam yaalam yàlla ngi ci jublu ki nga xam ne moom mooy euh, suñu maam aadam mm-hmm. boroom xam-xam ñu ne allamal insaana maa lam yaalam ba tey suñu borom subhanahu wa taala di si jublu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko joxee alquranul mm-hmm. karim fekk xamul woon dara mm-hmm. li jiitu alquranul karim wa wajadaka dallan fahada gis nga mu fekk la nga sànku maanaam xamoo fi nga jëm da mm-hmm. nga taxaw xamutoo fan nga jëm mu daal di lay won yoon bi mu daal di lay xamal alquranul karim mu ne la wa allamaka ma lakum ma lam takun taalam moo tax mu ne wa kaana fadlullahi alayka azima gis nga mu ñëw xamal la loo xamul woon mooy allamak allama al insana ma lam yaalam mhm. kon wa allamaka ma lam takun taalam ba mu la joxee alquran si la la xamalee loo xamul woon démb alquran jooju moo ubbi moo wala ubbil buntu kawnu bi mhm. ubbil la buntu mbooleem afaak mbooleem majaal mbooleem domaine mhm. mbooleem xeetu xam-xam ba loo prononcé rek nit ki jàngee ci loo xam ne ba ilaa yomi diin du ko jeexal loo wax rek moom buñ ko jàngatee de A à dañuy gis ne na nga ko waxee noonu la ñu dem ba ci biir ba deux mille 2021 américains yi seen journaux yi génnee ne nañ cha seen simbil chapeau ki nga xam ne moom mooy Seydina Muhammad ba mu ne feebar yi mel ni corona ak yooyu mbas yooyu bu juddoo ci ab réew ab gërëb fa mu nekk bu kenn génn ña ña fa neewul tam buñ fa dugg mm-hmm. loolu ñuy doog a comprendre loolu ñi koy wax tey ñi ne loolu mooy solution bi mu war a régler problème bi nga xam ne moom la ñuy dund tey te moom ma ngi ko waxoon démb kon wa allamaka maa lam takum taalam kon wa allamaka lam mu jox la téere joo xam ne képp ku ko tiim dina ci gis loo xam ne kenn du ko mën a gisee fenn mm-hmm. mais ñaareel li si gën a yéeme moom mooy mu àllamaka maalam takun taalam mu xamal la loo xam ne xamoo ko woon démb àllamal insaana maalam yaalam ba tey ba professeur yi nga xam ne tey ñoo gën a màgg ci jamono bu nekk suñ ñëwee ba tiim la nga yore ñu daal di jébbalu nga nekk professeur bi gën a mag ci professeurs yi nga nekk koo xam ne la nga wax ci xam-xam démb moom la xam-xam di confirmé tey waaye bu ko confirmé tey ëllëg tamit na mu développé développé dañuy ne kon ndeke la yeneen bi waxoon démb wala la alquran waxoon démb tey la gën a doon dëgg kon wa allamaka maa lam takun taalam allama al insaana maa lam yaalam doomu aadama di gëstu di gëstu di gëstu ci alquran ji di gëstu ci kawnu bi ci univers bi ci li yàlla bind ci xel mi nga xam ne yàlla jox na ko la ñu ne zihniyun wala mu nekk loo xam ne lafziyun wala mu nekk loo xam ne kitaabiyun zihniyun boo xam ne ci hmm. xel mi la bi yàlla jox doomu aadama hmm. mu kay mu koy mu koy naccal di xalaat di ko di settantal di méditer boo xam ne sa làmmiñ bi mu ko jox boo xam ne euh, nu mu tuddee sa al hmm. bayaan moo ngoog allamahul bayaan mu mun a prononcer mën a leeral mën a def discours mën a clarifier mën a euh, mën a exprimer wu Euh, clairement lentement ba ci koy déglu mën a comprendre ñu mel ni tey macha allah ñoom Serigne si la nga xam ne fu ñu jëlee kàddu bu ñu waxee rek addina bi ñëpp daal di jébbal daal di nangu loolu ci keetu xam-xam yi la bokk ak bi nga xam ne kitaab yi la boo xam ne sa xalima nga yore sa big sa daa ngay bind ba ngay bind xel mi di xalaat mi ngi noonu kon yooyu la yëpp borom bi subhaanahu wa taala ne allama al insaana maa lam allah allama al insaana maa lam yaalam mhm. tekki nga ko ci tekkin wu am solo mhm. xam-xam borom bee koy maye mhm. moo tax wa kaana fadlullahi alayka azima aaya ji nga jàng léegi loolu la ca teg eh, te itam mooy rek xéewal yi ma la defal day xéewal yu rëy laa wàccee ci yow Euh, ni nga ko waxee am na solo lool mhm. daa mel ne kenn ku nekk mën na ci am wàllam boo ko tàmbalee ci suñu maam aadama mhm. alayhi salaam mhm. keroog ba ko boroom bi dajalee moom malaaka ne leen an bi hoonii bi asma asmaayi ahullahi in kuntum saadiqin keroog aadama ba mu tontoo ba noppi malaaka ya ba ñu tontu dañoo delloo yàlla aaya ji ñu toll dañ ko wax ne ko subhaanaka laa <laughs> ilma lana illaa maa allamtana kon bu ne allamal insaana maa lam yaalam malaaka wax nañ dëgg mooy dañ ko wax ne ko gàcce ngaalaamaa yow ñun kat loo ñu xamul loo ñu xamuñ ko wallaahi moo tax léeg-léeg nit bu demee ba bàkku ba bàkku mhm. jël loxoom teg ko ci dënam jàpp ne kenn la ci kanam borom bi ndax xam-xam mhm. xamut boppam ndax borom bi nee na ko xam-xam moom sama yëf la maa ko moom wa maa uutitu min al ilmi illaa xalila maa ko yorte li ma leen ci joxe tuuti la <laughs> eh, li ci ëpp dama koo téye kon allamal insaana mhm. maalam yaalam nit war naa jël takkaayam yi muy waaje mu boole xam-xam ci gànjar yi nga xam ne moom lay takk boole xam-xam ci yi nga xam ne moom lay def ay priorité yi nga xam ne moom lay wut ci àdduna ndax saar wi da cee joxoñ joxoñ am solo imaam Abubakar agsi nañ ci jeexitalu mhm. jotaay bi agsi nañu itam ci jeexitalu juróomi aaya yi nga xam ne mhm. moo njëkk ci suratul mhm. iqra eh, xam naa bu ñu yàlla mayee ñu dund ba ay bi gi di ñëw daañu ko wéyal ci gën a taxaw ci saar wi eh, buñ ko deful pare aaya ki baatit ñu jël ko manière générale nag jàngat ko bu baax synthèse juróomi aaya yi ndax danañu ñu yóbbu ci njàngat mu xóot a xóot ma bàyyi la nga joxe sa kàddu yu mujj macha allah eh, baat bu mujj yu mooy allamal insaana ma lam yaalam bi Euh, kenn ku ne si ñun rek na jàpp ne moom mooy al insaan boobu. Mhm. moom mooy nit kooku yàlla xamal la mu xamul xam lu mu ko démb. mooy lan mooy kenn ku ne dafa war a def effort personnel. Mhm. sëgg ci alquran comme ni ko ndaw soxna Xadi euh, bi nekk États-Unis di mm-hmm. defee na mu def noonu ba gis mm-hmm. lu ko yéem ba mm-hmm. gis lu ko jaaxal kenn ku ne su ñun bu ko defee noonu lay gisee kéemtaan yoo xam ci al alquran yoo xam ne ñi jiitu woon démb ba ñu bind tafsirul quran min ba fatiha baqara banaas loo xam ne gisuñu koon xamuñu ko woon alquran moo mel noonu boo ci gëstoo rek xam li kenn keneen xamul woon gis si loo xam ne kenn gisu ko mm-hmm. loolu mooy alquranul karim kon bu ci kenn kenn xeeb bopp am na solo ñi ngi leen di jaajëfal bu baax jaajëfal nañ la ñi ñuy topp itam buñ defee ne mbokk mi indi woon laajam boobu ci commentaire yi danañ ci bàyyi xel danaa ko indi wala imaam Aboubacar xool ko wala Abdoulaye ba xool ko wax ñu ne ñu am na ku bindoon nangam ab laaj ci atadabour ndax day tax ñu ànd ñun ak yéen seetantal téere bi maanaam dañuy toog di waxtaan ci plateau bi waaye waxtaan la woo xam ne waxtaan wu ubbeeku la mm-hmm. ndax doonatut jàng aaya ak firi ko waaye yow mi jàngut alxuraan tax boo nee ma iqra lu muy tekki ma wax la ko mm-hmm. léegi yow atadabour ubbil na la bunt nga xalaat ci li la jot a wax li la jot wax ne iqra mm-hmm. mooy jàngal léegi yow dimbali rek nga jël juróomi minute xalaat ci baatu jàng ak jàngal ak li nga war a jàng foo koy jànge ak noo koy jànge ak boo jàngee ba noppi loo ciy def yooyu boo ko xalaatee rek dana nekk yokkute goo xamante ne yëkkatikoo lay doon ci wàllu xam bu yaatoo yaatu imaam Aboubacar maa ngi lay jaajëfal bu a baax di jaajëfal Abdoulaye Ba mi ñu àndaloon ci caméra bi eh, jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci Ali Imran TV ñi ne ci biir réew mi ñi nekk bitim réew cant ngërëm ñeel na leen yal nañu yàlla may ñu àggale kendal gi ci jàmm dig leen daje ay bis gii di ñëw incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV di ñu topp ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim téere borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission at tadabbur a ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole yi ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquranul karim Ali Imran TV lay amee ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ngeen ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar Traoré mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquranul karim suñu dund la moo ñu nett la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund tey te moo ñuy wax la nar a xew ëllëg inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam topp leen ñu ñu ànd settantal téere borom bi subhanahu wa taala ci Ali Imran TV ca kaw ca kanam